jërë ngeen jëf dorog diir bi na jasar ca banlieue bu ndakaaru ci la l'observateur xëy ubbil yéenekaay bi ni gaa mel ci drogue bi jéggi na dayoo te amul benn quartier bu nekk ca banlieue ba bu ci mucc journal bi nañuy xibaar yi ñu jële ca centre d'information et de sensibilisation sur la drogue ba nekk ci hôpital psychiatre bu Thiaroye doy na ci sëkk ab takk nga demit ca centre Jacques Chirac gis fa lu koy dëggal ñi dorog bi gën sonal journal bi kenn ci jigéen ñoo ñee di dorogew ñu naan ko Fatou Diop dénk na la nekk beneen ñu naan Aziz Diagne toll ci juróom benn fukkeet ak benn di borom kër bu liggéeyul xamal na waa l'Observateur ne moom ci jëmi boppam moo demal police boppam ne waa police nañu ko tëj ci kaso bi ngir mu bàyyi di dorogewu journal bi bind ne ni dorog bi mel ca banlieue bu Ndakaaru ca Géejawaay ak ci Pikine fa la yëf yi gën a ñaay jàngat bu ñu def ci mbir yi feeñal na ne ñiy jëfandikoo dorog bi téeméeri nit yoo ci jël juróom benn fukki ci lycée yi ak ci collège yi la ñu njëkkalaalee dorog La Tribune ci xëtam mu njëkk sikki sàkk a baax ci école yi réew mi téeméeri élève yoo jël ci mi juróom ci ñoom xam nañu lu dorog di saf sàpp journal Les Échos ne nañu moo amoon démb ca mbuur mool ya ñoo fa doon laaleeg takk der ya quai de bu ñu bëgg a def ca pàkku gaal ga nekk ca mbuur la mool ya ne du fa sampe mu andi woon fa fitna ju rëy seen digg ak takk der ya ñu raak fa policier yi raak bu rëy ba dàq leen ñu daw wëqet waaye nag bari ci ñoom pêcheurs ñu ci jëlee gaañu-gaañu teg nañu loxo ci ñoom it lu mat juróom fukk am na ci ñooñ journal bi ne nañu ñaawlu yi liberté bi ñu leen bëgg a defal bu ngeen ko bëggul mën nañu ko yóbbu feneen enquête dina kay nañu tàngoon na tatar démb ca quartier tefes ga ca Mbour ci diggante PCR yeeg force de l'ordre yi Sud Quotidien ne ko fukk ak ñetti ci ñoom mool yi police na leen loxo am na it ñu bari ci ñoom ñu ca jële ay gaañu gaañu Vox Populi di ñu fàttali li indi coow li ba jur fa fitna mu di benn quai de bu ñetti milliards bu ñu fa bëgg a def te nappkat yi ne bëgguñu Le Quotidien nañu policiers yi ñoo ca gën a di sàkku ñu tëj ko las bu Sénégal mi bi awul yoonu tëj sën bu mbëbës waaye mi ngi seet nu mu ko defaraate maanaam réhabilité ko ba fii ak juróom-benn at ñu mën di fa sotti mbalit ci lu dul gaañ askan wi mbalit meneen mu mën a gaañ askan wi soleil national xëyee na ko mu di déchets électroniques yeeg électroménager yi ñuy recycler journal bi gis nañu koy def donte ñu ngi cee jëlee lu ñu mën a faje seen soxla terewul bari na lu mu leen di yàqal ci seen wàllu wér géeram ak lu mu yàq ci environnement bi ndax xeeti déchets yooyu léeg-léeg dafay ànd ak cuivre armignon wala polom maanaam bettax te loolee dafay jur ay jafe-jafe ñi nekk ci jafe-jafe ñoo ngi ci grand place dëkkoon ca Tivaouane Peulh ca waa Descos toj seen i kër toll nañu ci 1976 victimes tàmbali nañu grève de faim ndax nee nañu ba ñu tojee seen i kër ak léegi def na ñetti at te ba léegi ñu leen feneen leneen ci ne kay ñu xëyandool mu di mbiri politique seetlu bi journal Vox Populi am ci tolluwaayu politique bi ci réew mi moo di guddi yu ñu toll daanaka opposition amatul ci réew mi ñoom Guy Marius Sagna ak compagne ñoo fi nekk di ko ñàkkanteeg Macky Sall dem sax ba far suul opposition bi ci réew mi réew mi njiitam di Macky Sall ak njiit réew bi fi woon di Abdoulaye Wade ñoom ñaar ñoo bokk toogandoo ci xët mu njëkk Walfadjri journal bi boolee kooku taxaw seetlu benn moo di njëgu courant bi yokku na ñaar di toj toj ak tooxi doona yi ñuy dégg ci nguuru Macky Sall gi mi ngi gën di bari ñetteel ba di fantasi roog ti bantay tànk xastante gi gaay mi nekk ci seen biir umpul kenn ak ñooñam yi dëkkee def lu ne weng te dara du leen ci fekk yooyee yëpp la yéenekaay bi boole gis ci ne fa Abdoulaye Wade tolloon ba muy jeexal fa la Macky tollu jamono jii jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye mbokk yéen ñu ngi leen di sant leen gërëm ci ànd beeg télévision Futur Média fii leen yam ak yéen ci xibaar yi di leen ñaanal bëccëgu jàmm rawatina Noël euh, suñ mbokk chrétien yi ñu ñaanal leen kon Noëlu jàmm jërë ngeen jëf yàlla jàmm def euh, yàlla jàmm yàgg fii ci Sénégal